alhamdulilah maa ngi leen di jaale jëwriñu Bamba borom kamaali bisimilah maa ngi leen di jaale jëwriñu Bamba borom kamaali moo fi desoon ci doomi Seexu Bamba bur yàlla yóbbu ko fekki Bamba moo fi newoon xalifatul ilaahi Serigne Saliou Mbacké moo doon xaadimu rasuulillaahi mooy salaat tariixatul muriidi ba ñépp xam muriidi ak mariidi moo dalaloon xel ba ñépp jaaxle waaye de tey xol yépp a bég cey bàkke balla yaa matal liggéey bi xutbu bi yaa yonen bi liggéey bi mat na xol yépp bég sa dem gi tax na xol yépp dee na ca yàlla laa ilaha illa laahu muhammadun arsalawal ilaahu salaale ilaahu bi fi ali wa sabil kiraami ca yàlla jël na mbàkke balla ay saak borom gota nguur dem na neeg solom saak te yàlla jël na bàyyi soxna moomi naqaru tiis wi am ci réew mi ku baax ka dem na nii ba génn àdduna wallaayi de metti ci àdduna way fu nu jëm ay fu nu jëm xawma ko tey fu nu jëm ku ko xam nañu ko suuf tiim na bàyyi soxna waalo mbaake way àdduna tukki ku yebu jekkim mooy samsu falli moo fi roy yonen bi jant bu soowee kenn du gis ci dun bi moo leeraloon biddéew yi leeral weer wi moo leeralaat jamono xol yoon wi keroog ba yonen ba di waaj demam nga laay tëkkaleeg sa dem gi mbàkke wàcc nga al yawma akmaltu lakum la wax ni diinakum gaaye di bég xamuñ li tax ndekete day tàgge keroog yonent bi am na ci ñooñ déggul li xew ci laaya bi xibaar ba taf ñu naa yonen ba faatu kenn mënu koo dégg keroog Madina faaruux a yor jaasi tanaa ku ami tey bi faatu ma daal di lay rey Abubakar Sidiixu moo ko dalal keroog teewul ñu yuuxu abubakar jooy na ba bët ya muuru saaba yépp maasey tuuru saaba yépp maase tiit naa nu jëm muhammadu rasuulullaahi moom lañu xam yàlla mi jël muhammadu rasuulu moo yóbbu seex saalihu maa keroog ba muy gëne njaarim àdduna lañ xam ni kii mooy mujj leeral àdduna bamba ngi toog ci suuf di waxtaan ak seel malaamin jóob ñuy waxtaan am ndaw lu ñëw ci bamba daldi di koy déey ni faat jaxate am na gantay mu jël bu tedd booba mbaake bind ca suuf asaaliya cey mbaake muhammadul amin dem dellu jël xalimaam bind ca ay bayit yu wér jox ko xadim أبقالنا بفضلي ساليا فاغر لنا جاد بي ساليا أبقى زمزا في سماء أدري يسخل منه وجهه كاليا أبقى مؤمنا لاضيا مباركا مسان فاليا am na bisit sëriñ bi ñëw di soññee ci ab jataay sëriñ bi doon ku ràññee jotaay ba Seex Saaliwu Mbàkke moo nga faam nekk ca biir sëriñ bi ñëw fekk ko faam ba mu ñëwee toog ci wetam ñu puus ko sëriñ Isaa jën na ko xaw puus ko lam jublu woon puus ga mooy ngiruk